dañu ne tey jii li nga xamante ne moom mooy coordination APR Parcelles Assainies dañu daje tey 3 octobre à la maison des si structure yi nga xamante ne moom moo ëmb APR yépp muy jeunes yi di jigéen ñi di sage yi di jàngalekat yi di jàngkat yi ak arabisants yi ak ñëpp ñi nga xamante ne c'est des c'est des mouvements affiliés ak lépp li nga xamante ne également ay sympathisants ak ay militants APR lañu ñoom ñoo daje fii tey bi ñu daje nag dañu gis ne enjeu yi ñuy dem nii am na solo am solo boo xamante ne nii te yaakaar nañu ne Parcelles Assainies am doole gi mu am doole ak li muy peser si li nga xamante ne moom mooy arrondissement Parcelles Assainies ak département de Dakar ba ñëpp naan ku gañe Parcelles Assainies da gañe Dakar kon Parcelles Assainies am na solo boo xamante ne nii li nga xamante ne moom mooy la grande majorité de l'APR la grande majorité présidentielle fas yéene nañu doon benn boole xol yi boole xel yi boole xalaat yi doon benn parce que ñëpp xam nañ ne tey boo duggee ci salle bi xam ne APR benn bopp lañu te APR dañu koy dañu koy wax ne mosuñoo ñàkk élection fii ci Parcelles Assainies depuis 2012 benn yoon bi mu amee boobu dafa fekkoon APR seen biir divisé wu waaye tey alhamdulilahi rabbil alamin APR ñëpp ànd nañu doon benn fas yéene dem ci élection donc consensus boobu ñu am je pense ne tey gisuñu dara loo xamante ne mën nañu teree gañe wante dañu gis ne dafa am koo xamante ne naam rejoindre na président Macky Sall en 2018 ba mu ñëwee aussi honneur yu war yëpp ci àndandoo Euh, APR jox nañu ko ko ba mu jox nañ ko respect jox ko considération gunge ko li nga xamante ne ni ñoo ko bokkoon muy élection présidentielle yi donc kooku dañoo gis ne tey jii tey jii gannaaw ba mu defee 14 ans Parcelles Assainies parce que loolu aussi di ko fàttali dafa am solo Moussa Sy def na 14 ans Parcelles Assainies presque 3 mandats. trois mandats yi benn at a si donc ku mel noonu gis nañu ne incarné benn espoir ci population Parcelles Assainies te amatu fi benn légitimité euh, ñu gis ne également maire bi bi fi nekk gis nañu ne bilan yam ci quatorze ans yooyu yëpp yàlla jox ko budget bu baax defu fi dara tous zéro gis nañu ne gis nañu ne li am parcelle li am parcelle kenn defu ko fii ku dul son excellence le président de la République président Macky à travers euh, le projet Promoville moom moo commencé woon di dalee li nga xamante ne moom mooy unité yi unité de voisinage ba ci buntu Mérène ba un peu partout 22 unité 18 unité 21 loolu yëpp président de la république Macky Sall mooy l'état du Sénégal li nga xamante ne également pour que ëllëg bu ko dee bu nga buggee def boole ci bilan yam mooy les stades des Parcelles Assainies ñëpp xam nañ ne du kenn ku ko defar lu dul son excellence le président de la république Macky Sall moo jagleel parcelle milliard si li nga xamante ne moom moo doonoon conseil des ministres. décentralisé bi mu defoon région de Dakar si la jagleeloon parcelle un milliard tey jii moom moo jur suñu stade bii nga xamante ne ñu ngi koy waajoo ubbi ñu wax ne également li nga xamante ne moom mooy commissariat de police bii nii boobu yaakaar naa ne c'est tout à fait et puis la sécurité ku xam xam ne ce n'est pas une compétence transférée donc c'est l'État du Sénégal loolu kenn mënuñu seen nax donc dañu xam ne li am parcelle du kenn ku dul euh, ki nga xamante ne moom mooy le gouvernement du Sénégal te itam ñu ràññee loo xamante ne lu am solo gis nañ ne Moussa si wegul responsable Parcelles Assainies ndaw loowu leen ñun waa APR faalewuñu romb na sax li nga xamante ne moom mooy APR mais Benno Bokk Yaakaar yëpp Moussa Sy joxu leen cër wegu leen faalewu leen Euh, ñu gis ne également que ne bu yàggul rek lañ ko invité ci télévision yi amul dara lu ñuy jiiñ ndax càcc te te ñëw rejoindre bokk ci ñun di ñu jiiñ càcc te dañoo sàcc ne lii nag lii nag wax dëgg yàlla jéggi na dayoo moo tax li ñu fi lim ñu gis ko mu def ko si ay toj-toj si ay tooxi duna si loo xamante ne aussi ñàkk liggéey bu fës moo tax ñun responsable APR yi nekk Parcelles Assainies à travers suñu différentes structures yi mag góor ndaw tey nee nañu Moussa Sy du koo xamante ne nii day jiite liste benn bokk yaakaar fii si Parcelles te du ñu yem foofu du ñu yem foofu dañu ne on exige mais on est des bu ñu demee élection moom Moussa moom daf fiy jóge am na konkaar loolu daal nañu gëm te daf daf daf fi daf ñuy may parce euh, que donc moo tax te tey jii bu ñu gisee muy commerçant muy artisan muy pêcheur muy élève muy étudiant muy fonctionnaire muy ku mu mën a doon Parcelles Assainies ñëpp ñu ngi naan tout Macky Sall comme ñu tegal baax na ba mu des Moussa Sy donc foofu la ñu yem di leen gërëm bu baax di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah